tijani sama waay la jamiñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub waaw waaw mais baax na baax na baax na baax na baax na yaa na baax na baax na allo Kali waaw baax na baax na baax na ok euh, euh, ma ne d'accord bi ma daloon depuis bi ma amee seize ans donc feebar bi ma amoon daal affaire bi ci góor rek tëdd ak góor euh, damay xiir quoi ay góor rek la mun a tëddanteeg ba ma ba ma mën a am li ma li ma bi dem tamit ba ma ba ma sonal beneen dëkk bu ndaw bi ma demoon pour liggéey yàlla def def ji ma nekkaale woon ci liggéey bi guddi bi jotee ma jéem a sekkante ak kenn si ñoom. ci la ñu yeewee ci la ñu ci guddi gi après ñu jéem a ñu jéem a door foofu noonu affaire bi metti ma ma xam affaire bi mënul wéy quoi ci laa delluwaatee ma woo sama yaay comme amu ci ma waxtaanal donc euh, ci laa ko woo expliqué affaire bi lu mu demee ak affaire bi lu mu dale quoi euh, ci la ma ne amul benn problème donc euh, comme mu ngi lay doog dal mun na am dafa ma xam ñu dem foofu noonu après ci la ànd ak bi ñu bi mu ànd ak ba pare ñu dem foofu. sëriñ bi bu mu xoolee ba pare nee naa ah, seytaan bu jigéen moo ànd ak man quoi dafa affaire bi ñu defoon affaire bi du pour man pour keneen la beneen man maa ko man maa ci dal quoi man maa ko xaw ma lan lañ man maa ci dégg quoi donc bu mu waxee ba pare dafa ñaari sangar yi ñuy def sang sangar bu ne la def. donc ci la ma joxee ñaari sangal yi ma dem man ak sama yaay ma daal di sango bi ma commencé sango affaire bi ma tuddee semaine ma gis woon mënu mu woon toog benn jour te ko lool defuma ki may defal damay dem ci àll bi am nga jéem a sacrifier sama bopp pour mun am sama bànneexu bopp ñëwaat léegi affaire bi ma commencé sango affaire bi dal may commencé may muy commencé dal ci ma tëdd ak benn góor boo ma rek damay jóg foofu la. bëgg la door affaire yu mel ne parce que affaire bi dafa dem ma bañ ko quoi ñaari sangar yi ba pare après man ak sama yaay comme war nañ delluwaat foofu suba comme deme sëriñ bi mu gaañu tey ci guddi quoi ci laa sama yaay man sama àdduna yàqu na kii ni commencé na cinquante ak moom pour sangu ma gis ci loo xam ni bu ma ci toppee affaire bi di mu dina denc man léegi sëriñ bi gaañu lan laay def sama yaay ne yàlla baax mun na am ñu gisaat keneen mel ni moom affaire bi di dem di dem di dem di ba mu génne foofu noonu dem ci dëkk Afrique yi bi ma demee foofu noonu euh, ma continuer di ko def donc ma continuer di ko def affaire dafa dem ba ba ci man comme comme ni ci man comme comme benn euh, daal virus quoi daal benn virus ma am ñu ma sekkante ak ñoom ñu bëri euh, donc ci laa nekk ba ma yàggee foofu noonu ba pare. ci laa woo sama mag bu góor comme bi bi ma dalee moom xam na sama yaay xam na ci laa ko ma ne ko ah bu ma takkee jabar affaire bi dina denc ma benn problème dañu programme loolu sama mag bi ci laa dem bi ma demee def foofu cinq mois sama jabar ba yàlla def ma ñibbisiwaat bi dafa mel ni ci la ci la ci man ko Eh, ci la gën ci man ma yàgg ci nag ma yàgg ci ma yàgg ci mais souvent dama doon julli même bu nekkul war sax dama doon war pour affaire bi mu si man ne day gën a day gën di di man souvent damay toog di jooy te tamit même bu weeru koor même weeru koor bu ñëwee affaire bi bu ñëwee si man rek foofu faaw ma dem def ko waaw ah, fi mu nekk nii ci usine bu mag laay liggéeyee mun naa commencé liggéey léegi. bu ma amee ki nga xamante ne bu ma woowee téléphone damay bàyyi liggéey bi dem te affaire du ma ko tey damay dem naat bu ma demee ba pare bu ma ñëwaatee may regretté quoi suba damay toog ci ndeg bi man kese di jooy perte bi métti ma trop xaw ma ki may amoo ki may mun a waxal ki ma nekk nii sax bi ma ñëwee fii dafa am benn sëriñ biñ ma boole woon moom man ak moom ñoo doon dama ko expliqué mu ne mun na ko faj. mu nekk nii mat ay cinq cent cinq cent mille ou bien six cent mille yu ma commencé gis naa la yónnee naa la ay xar xar yu ma rayoon samedi ba dépassé dafa ne woon dama warul génn sara xar ay ginaar loolu yëpp def naa ko ba léegi mënu ma mënu ma am jàmm te tamit fii dafa metti gañ lay dañ lay tàmbal da ngay dem tëdd ak kenn jël xaalis bu bëri jox te xaalis boobu na amul mu benn njëriñ xaalis bi xaalis boo xam ne xaalis mbaaxul man li may liggéey ci laay génne yónnee samay waaye xaalis boobu noonu bu ma bu ma ci sarekul man du ma ko ma ko def yenn pour partager samay samay frère wala samay famille wala def ci lu baax parce que mu ne na xaalis boobu baaxul bi dem na nag ba ba dépassé boo gisee ma wala tey dama amatul soi ma amatul soi may toog di jooy bi depuis bi ma amee seize ans maa ngi ay trente quelque bi def moom def metti trop te boo ma gisee doo man bu ma la waxul man affaire yoon dama koy def doo ko foogee góor yàlla la man bu ma la yoon gis nga samay photo tamit bu ma la yoon dangay ngay ne non du dëgg yow da ngay affaire mel ni te inventé mu affaire bu woon waaye ñëwee ci ma rek parce xëy na benn jour ma ne ko comme ma affaire bi may dal ma waaye fii dëkk bi ma nekk fii boo génnee sax xam nga fa lieu boobu boo ci yàggee tamit ku ci nekk rek boo ko gisee danga koy xam day génn dajante nit mu xool nga xool kenn ku ne ñëw sa morom ngeen waxtaan ngeen joxante rendez-vous wala ngeen joxante numéro wala ngeen dem def li ngeen di def dem naa ba toog toog naa un mois yoruma yoruma téléphone pour bugg ci bugg ci bugg koo bàyyi mais loolu yëpp mënul mënul mënul nekk affaire bi dafa def ma defa te jullit laa man jullit laa jullit jullit warul def yenn yi mu toogee loolu tey tey ci li ma nekk di bu ma dee tey tey tey tey bu ma demee lan laa waxante ak yàlla lan laa waxante ak boobu nekkul loo xam ne dama ko tey tey moo ko tey moo ko wallaay tey moo tey tey bu ma amoon ci ba ci génne wallaay li mu yëpp moom mun naa koo jox pour mu génne ci ma génne ci ci moom moo ko gën a leb takk naa jabar war naa ay ay njaboot samay njaboot tey bu ñu déggee seen papa ci nekkoon loolu da leen di rusloo pour pour def yenn da leen di rusloo pour génn te kenn kenn ku ne bu góor tamit ngay def lu bon nga dee ci nga bokk moo gën waaye bu ma ko mënee bàyyi tey tey dama koy bàyyi waaye mënu ma ko weeru koor laa lay wax ni barki yàlla weeru koor daf may dal ci biir weeru koor daf may dal ci biir weeru koor te man waxtu du ma ko bàyyi damay julli may def ndaf lépp lu julli di def dama ko suba damay nekk bi di julli sa affaire bi ñëw ci man dama xam sax lu may génnee ci jumaa ji wallahi du ma xam sax ni may génnee ci jumaa nekkuma loo xam ne dama koy tey bu ma demee ba takka jabar pour génne ci waaye damaa takka jabar affaire bi gën di yokk suba sama jabar bu ma ko gisee dama ko yërëm quoi dama ko yërëm damay xam ni man lu may dund nii sama jabar tey tey bu ko yëgee lan la lan la war a wax ak lan la war a demee daf ma metti te fi mu nekk nii barke yàlla sama dund ma dee sax moom ma gënal ma dund quoi même bu may dee sax laa xama benn yoon ma mun a noppal toog di jooy kan yi damay toog di jooy aw ma ku ma a jàppale affaire bi sëriñ boobu noonu bu dee woon tey bu deewul woon affaire bi dañ ne ci man parce que commencé naa gis bi ba waaye ji ma duggante kay da ngay duggante gi mu ne la cinq cent mille ba ngay joxe avancé may yónnee xaalis rek di yónnee damaa yónnee ba xamatul di ma yónnee su may nekk nii di mu yoroon yëpp yónnee naa ko pour mun naa am jàmm waaye munuma am jàmm samay mag samay rakk kenn deful loolu sama yaay tey tey bu amoon bu amoon bu amoon lu ma bëgg tey man ba génn ci nii suba sax dama may woo na affaire bi la daloon ba mu ngi tere lan laa koy mun a wax ku koy wax mu ngi tere yaay te man tamit may dund ba rek maa ko dama jooy dama jeex boo gisoon maa moon yaram léegi dama jeex lool yëpp ay mis affaire bi tamit dëgg nga xam ni feebar kes moo ko rek xamoo kan moo lay wàll nga delluwaat wàllu ko sa jabar ak ak bi ngay am ak bi ngay am yàlla def yàlla def da maa ngi ci ci laa nekk démb sax ci laa jógee te man góor di sekk ak man ginnaaw man may sekk ak góor ginnaaw waaye man du ma nag góor nekk sama ginnaaw du ma ko nekk loolu yëpp man metti nag ma gis tamit euh, sa TikTok bi lépp ñu ngi ci dugg di di di xool ci solution ku ma ci mën a jàpp rek te yàlla tax mu jàppale ma ci mel ni Serigne Abdoulaye Diop xaas ak ñoo xam ni yàlla da leen may jàppale ma si yàlla tax te bëgguma kenn tamit xoole ma borom ñaari tur la damay tëdd ak waaye tey mago ko tey ma tey tey bu ci bu ma sañoon ma génn ci te lan man xam naa lii ni man xamaa baax kenn ku ne jàmm rek laa la yéene jàmm rek laa sekkal ak man damay toog ma ne ko ma ki ma bañ parce que ñëpp ma bëgg léegi yàlla defoon lii dañ si man tey sama aduna baax affaire bi day yàgg ci yow boo sa jabar sax booy toog ak moom ak ak doo ko doo ko mën a sekkantal moom yenn yi am na sax ku ne ne yow dafa dafa metti kali xaw ma sax koy wax dafa metti man damay toog di jooy yoon bi damay dem ci dem ci demal loolu rek laa bëggoon ma partage ak yow partage sénégalais ñu may déglu parce que yàlla tey bëggoo yàlla moo xam ne tey wax góor yàlla laa man góor yàlla laa teel naa génn teel naa wut am naa sama kër bopp am naa sama kër bopp mais loolu yëpp doy moom man bu ma génne ci moo ma moo ma doy ki may jàppale ba ma génne ci lii man moom ma gënal fuuf ci sama àdduna tey tey tey tey tey tey buñ ma newoon tey boo dee da ngay dugg aljana wallaahi ma dem moom a gënal wallaahi te lii nii boo ci nekkee boo dee lan la nga wax lan ngay wax ak yàlla loo koy nettali loo koy nettali baaxul baaxul man jullit laa doomu jullit laa sama yaay dem na màkk sama baay dem na màkk waaye man daal sama waay la jàmm ñal jaara man se bi